ndeysaan patron kër dof yi dama ko mujj yërëm nag quoi parce que lu muy dund dafa métti il souffre quoi si souffrance bu méttee métti la nekk mooy xol bi mooy tàng toujours te li mooy benn nit la mënta supporter bu ñuy tuddee Ousmane Sonko te ndeysaan def na semblance ba sonn nag temps yi Ousmane Sonko nekkee ci jafe-jafe di ko bëgg-bëgglu te fond ndeysaan da doon jouer théâtre rek ndeke moom Ousmane Sonko rek la bañ ndeysaan et puis il n'est pas sérieux quoi waa ji c'est que waa ji moom dafa foog réew ay folo quoi pour moom ci ay caaxaan lañu nekk moom dafay caaxaan na ah. xam nga ñoom stratégie bu ñuy jéem a def moo Thierno Bocoum mooy ne dañoo war di tirer ci Ousmane Sonko quoi à chaque fois il tire sur Ousmane Sonko moo xam def na lu baax wala def na lu bon ñoom li ñuy tirer ci kawam rek quoi jàpp na loolu daf leen di may bës te bës boobu baaxul ci ñoom. bësu kaña la quoi xam nga kaña fu mu génnee gars yi dem uti ay yet uti ay xeer naan kaña gaa ngi kaña gaa ngi pour toj bopp bi loolu moo leen di dal da jàpp ne comme Ousmane Sonko il était dur avec euh, Macky sàll ngeen jàpp na yéen loolu ngeen mën a def ak Ousmane Sonko pour agsi fu mu agsi nii xam nga kontex yi du benn moment yi du benn c'est la même chose seen bës bi nii bësu kaña la baaxul ci yéen ay ennemis rek la leen di jural mais du leen jural dara mënu leen ci am benn yokkute. On ne s'oppose pas par la haine et la mépris, mais on s'oppose par des idées, des arguments solides. noonu la ñuy opposé woo quoi mais bañ naa nit ki contre naa ko sa personne neexuma damay attaqué subaa ngoon guddeeg bëccëg di ko sosal di ko fenal di inventé mais loolu c'est pas de l'opposition mais opposition du caaxaan opposition dafa war a sérieuse quoi ngay am ay argument teg ko ci xam-xam di wax boo waree wax mais di wax nii rek pour ne damay opposé wu quoi di wax ay waxu dof te moom dafa mel ni ci suuf sax dafa xaw a fan waa ci suuf ko dafa xaw a fan tuuti ba pare iñaanee ko moom ñaar la boole dafa fan Sonko ci Sonko nu mu nekkee guerrier nu mu nekkee un gladiateur ni mu xeexeeg Macky Sall ba jëlee ko fi moom dafa bëgg a def noonu contre Ousmane Sonko te xamul ne du benn comme yàlla ak yàlla ba pare il reprend les expressions de Ousmane Sonko quoi yéen ngi fàttali ko bu ñu demee Kër Massar foofu la Ousmane Sonko waxee woon ne Macky Sall dina jël sama bakkan wala ma jël bakkanam il a répété la même chose hier <laughs> nee na Sonko dina ma rey wala ma rey ko mais yow lan nga jotee ak Sonko ba Sonko dina rey nga koy wala nga koy rey. yow nga yaa ngi Sonko joteewu leen dara Sonko defu dara mais Sonko bi muy wax loolu ñëpp xam nañ li ko doon Macky Sall di def parce que Sonko ci boppam moom moo sonaloon Macky Sall parce que Macky dafa amoon benn projet mooy éterniser wu au pouvoir léegi mu xam ne loolu Ousmane Sonko moo ko koy xañ parce que Ousmane Sonko mënul nekk Sénégal Macky Sall di éterniser wu au pouvoir léegi nag loolu moom moo ko métti quoi léegi Macky xam ne pour mu. Euh, éterniser wu au pouvoir il faut qu'il élimine Ousmane Sonko doole ju mu amoon yëpp mu jël ko sëf ko Ousmane Sonko doole état jaxase ko ak sëriñ si yàq deram di ko jiiñ terroriste di ko jiiñ ay euh, salafiste ak ay rebelle ak di ko xañ àqam ak yelleefam di ko créer ay dossiers judiciaires di ko utal ko benn arme sexuelle Adji Sarr xam nga yooyu yëpp quoi li Ousmane Sonko doon subir dafa métti di rey ay nitam di tëj ay nitam dax ko fu mu doon liggéeyee répression boobu noonu dafa métti woon trop trop trop trop Ousmane foofu la tolloon bay wax loolu mais yow fan nga tolloog Ousmane Sonko bay wax ne Ousmane Sonko dina la rey mbaamu rey yow Ousmane Sonko defu la dara jotewu leen dara Ousmane Sonko bu doon jotee kenn sax keneen lay doon mais du nekk yow parce que yow tekki woo dara yow lan nga mën a son sonal lay Ousmane Sonko. ba pare Ousmane Sonko moment bi muy xeex ak Macky Sall moment boobu dafa jot quoi Pastef rek avant ñu koy créer Macky Sall def na fi deux ans Macky 2012 la fi toog 2014 la gars yi créé Pastef te xeexam ak Macky Sall mu ngi commencé 2016 mooy bi mu ko dàqee impôt et domaine parce que nee na Ousmane Sonko dafay dénoncer day dévoiler ay secret moment boobu la xeex bi commencé ba 2021 ñu continuer ba 2024 ba ni koy Ousmane Sonko di daanelee. di xeex ak moom ci stratégie di xeex moom ci doole façon xeex bu nekk la Ousmane ko doon def bu stratégie jotee mu teg ay stratégie ci suuf su doole jotee mu indi doole mais yow yaa ak Ousmane tollu leen foofu tollu leen foofu ba ngay wax naan ay Ousmane Sonko na la rey waa <laughs> mbaa nga rey ko yow looy rey Ousmane Sonko yow yow ñemewoo sax quoi Bougane yow Bougane da nga ragal yow soo dem manifestation bu fi Macky Sall nekkee yenn wax yi ngay wax ni Ousmane Sonko nii ak président Diomaye yow mosoo ñemee wax loolu noonu temps yi Macky Sall parce que xam nga Macky Sall moom Macky moom li ñoom Ousmane Sonko di xool ak ñoom président ba Bassirou Diomaye Faye moom du ko sax xool moom da ngay ŋàng rek mu jàppale dem tëj ci kaso bi moom waaw mais ñii nga yàpp parce que ñii nii ay démocrate lañ bëgguñoo nekk di def comme li Macky Sall doon def ba pare dafa mel ni nga bëgg yow ku la tëj quoi pour nga mën a victimiser wu quoi mais yow dangaa fàttali ne yi mu ngi waaj a ñëw législative le le 17 novembre la te il faut nga natt sa bopp te cette fois yi dañu la ko yombalal koi y aura de parrainage waaw donc préparer nga jéem a nekk tête de nga wane sa bopp su boobaa ñu xool ndax yow peser nga dara ci Sénégal wala am nga benn représentativité ci Sénégal wala déet. li ma gën a def nag nee na doom ji daf ko gis mu teg benn sac quoi à côté <laughs> mu ne ko papa waa sac bu ñuul bi moom lan la. mu ne ko damay préparer pour dem prison quoi <laughs> xam naa doom ji bu ko déggee dina wax ci xelam ne sama papa mën a fen <laughs> loolu moom daf ko inventé quoi loolu moom fen dëgg la doom ji waxu ko dara dafay fen rek ay toog di inventé di sos sa waay noppalul tekki woo dara amoo benn représentativité ci réew mi waxuma mu dend ak saagakat boobu noonu nga xam ne il est aigri moom du mas a kontaan ba àdduna di tukki nga xam ne c'est un sulaar quoi xam na ne Ousmane Sonko du jaxasoog genre nit yooyu noonu comme moom ni mu mel noonu moo tax mu commencé xeex bi moom ak Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko du mas xeetu doomi aadama yooyu noonu saagakat tuxkatu yàmba un vaurien soulard xam nga Ousmane Sonko du ànd ak genre nit yooyu di yàq image am léegi nag moom dafa xam boppam nag mu xam ne Ousmane Sonko du ànd ak moom du jaxasoog moom mu ne xaaral ma dem ànd ak ñi nga xam ne c'est des mécontents quoi dem jaxasoog ñoom waaye su fekkee député nga bëgg a nekk de xaw ma ban sénégalais mooy jël saagakat bu alako bu mel ni yow un soulard un fumeur de chanvre indien di ko yóbbu assemblée nationale ne pour moo ñuy représenté ñun loolu Macky Sall rek a ko sañ Macky Sall moo sañee jël yenn xeetu nit ñi di leen yóbbu assemblée nationale ay kuram Macky yenn xeetu nit yooyu noonu waaye loolu jeex na rupture lañu wax fois sénégalais yi léegi ay nit ñu am classe lañ soxla ay nit ñu correct waaw ay nit ñu jub waaye xeetu genre yooyu noonu doy na sénégalais yi bëgguñu genre yooyu